xamante ni moom la Ibou Dieng teg ci euh, noddal Lat Diop ba ñu auditionné ko mu génn ca libre waaw loolu li ci li ñu ciy wax du bëri comme lu honorable expliqué euh, dëgg la mais nag euh, remarque man bi ma ciy def rek mooy mhm. bu doon nguur yi fi jógale tey jii di nga gis ne kon du yomb si laat parce que amul lu mu yàqul ñi nga xam ne ñoo yor réew mi tey jii mhm. bu doon ñi fi jógale tey jii amaana dinañ ko yàkkamti yàkkamti koo xamante ne bu xësee bu dugg seen i loxo du génnaat donc am na ñu fi nekk benn sérénité boo xam ne am nañ ko boo xamante ni ñi fi nekkoon amuñu ko woon maanaam ñoom o moins ñi ngi ñëw ak dal ñi constaté affaire di avancé ndànk-ndànk parce que am nañ fi trois moom mooy troisième bi nga xamante ne bu njëkk bi c'était avec euh, kii yooyu homme d'affaires boobu hmm. Doro Gueye bu njëkk bi hmm. Doro Gueye la woon après Doro Gueye yaa Adama Fall aussi hmm. Adama Faye euh, bu Marème Faye sàll après Lat Diop mais nga constaté yooyu yëpp même bu bàyyi jaxate bi aussi mën nañ ko dugal foofu mais yooyu noonu yëpp bu doon ñëwee da ngay comprendre am na porox ndoll bu ñuy ubbi instruction wala fexe ba noot nit ki téye ko foo xamante ne tey jii dañuy wane ne ñoo fi nekk te d' accord ak ñun mais avec ce régime au moins constaté que ne justice mi ngi dem ak beaucoup que démb bi ñu ne laat ñu bind këram. ak ñaaxaanaay aussi. bi nga xamante ni di xewoon na ci diggante euh, le le PM ak euh, Lat Diop en un moment donné. tey jii mm-hmm. mënoon na doon euh, que ni jàpp nañ jaan ci pax. Mm-hmm. loolu laa wax ma ne ma ne su fekkonte ne ñeneen ñi rek da ngay gis ne moom mii du du ñibbee noonu këram. mais donc loolu pour man euh, c'est une bonne chose boo xam ne ñi ngi continuer di ko observer am yaakaar ne dinañ continuer noonu. Mm-hmm. voilà merci beaucoup leneen euh, li nga xamante ne. sax loolu day réconforter li li li li Moustapha wax euh, déjà mooy ci débat bi le président Bassirou Diomaye Faye soulevé ci le fait moom ndax day toog ci conseil supérieur de la magistrature waaw wala déet. donc loolu yëpp dafa am firnde dafa am yéene yéene gu ñu am pour que vraiment euh, réew mi am neneen ñu ko tegee parce que tey jii yéene bi weesootul mu ñëw rek mu ne nañ def assise de la justice parce que xam nañ justice vraiment euh, ni mu salfaañe woon ni mu jaxasoo woon ci réew mi assise de la justice bu ñu ko defee kan la déglu les acteurs concernés la déglu mm. citoyen bi lambda bi la déglu conclusion yi lañ ko jox waaye bañ ko ba mu waxee ndax dafa war a siéger ou pas ci conseil supérieur de la magistrature bi dafa am lu bëri ci ñu ko wax ne da war a toog te man bokk naa ci ñuy wax tey jii na toog bien vrai que ñun suñu vœu mooy ñu bañ ca yoon bokk. parce que waaw vraiment loolu la ñu waxoon ne buñ ci bokk pour que indépendance bi ñu bugg ci justice mu am waaye dafa am foo xam ne euh, nit ñëpp lañ fa taxawee. ñu ci bëri nag argumentaire bu ñu indi mooy mais attends mais le président de la république c'est le gardien de la constitution mhm. léegi imagineel tey jii ñu bàyyi magistrat yi ñoom kese ak seen corps imagineel bu ñu fa amee problème kan mooy àtte kan moo leen di régler kan mooy arbitrer bu ñu buggee euh, euh, sur euh, surpasse seen pouvoir kan moo leen di wax taxaw leen yam leen fii bu leen yem fii léegi li ñuy bañ mooy le président de la république nekk ci biir di xool magistrat bu ko neex bu ko mën a defal ay affaire nga teg ko composition bi aussi tamit war nañ ko revoir wax na ko dañu war revoir composition parce que ñi ci bëri loolu nag magistrat d'accord ci bi ne ouverture bi gars yi waaw mais moo tax xam nga moo tax waxtaan moo tax waxtaan baax xam nga président moom dafa ne man damay waxtaan ne moom danañ ko indil lu mel noonu moom dafa jàppoon ne peut-être gars yi dinañ loolu parce que comme on a tellement fustigé la présence du président au sein du conseil supérieur de la magistrature. xalaatoon na ne bu wootee assise majeure partie yi dañ naan noonu lañ ko ci dindi. Hmm. mais malheureusement dañ am loo xam ne dañ ko waxat nag mu toog ci. te loolu yëpp volonté la au moins dañ jàpp ne y a une volonté manifeste euh, de vouloir changé les choses de vouloir que justice bi ñu xam ne ne moom moo ñu mën a téye moom mooy source de stabilité et de paix et de sérénité pour mun ñu permettre ñu dem de wax donc loolu aussi tamit bokk na ci li nga xam ne par rapport ak situation bi am ñu bàyyiwaale ko xel ne président de la république moom noonu la noonu la en fait boo seetloo ni réew mi doxee nii euh, ak justice ni muy doxe boo seetloo moom noonu la ko bëggee te man de personnellement aussi tam noonu laa ko Sénégalais yi bëri noonu lañ ko bëggee dossiers yi war nañu parce tam nit nit la nit bu ne dafa am dignité hmm. yàlla sàkkul kenn koo xam ne boo euh, fait mun nañ wax di sax yàlla li mu sàkk nit moo ci nit la ci gën a fonk kon ñu ça sert à rien lan dafa am nu mu mel dafa am man kay lu may ñaan yàlla mooy bu ma mel mu yàlla bu ma mel mukk na nit kële mel wala tey jii yàlla bu ma def li nga xam ne nit kay daf ma koo defoon mm-hmm. parce que bés boo ko defoon yow boo ko defee yow nu nu mu la doon doxal doxalee ak yow rek boo metul nga mel ni moom waaye du tee comme ni ma ko waxee sànq dama ne le président de la république tey jii moom amul amul problème ak kenn ñun amuñu problème ak kenn le premier ministre amul problème ak kenn keroog sax ba mu ñëwee Grand Théâtre dafa ne man bu fekkee ne lu ma concerné directement <laughs> loolu moom baale naa ko. Mm-hmm. waaye lépp lu nga xam ne nit ki da def mu mu mu war mu muy alalu bu ñu luubal mooy tooñ nit affaire yooyu loolu lañ bàyyi justice mu réglé ko. Mm-hmm. kon ça veut dire que volonté bi c'est clair fi ñu bëgg a jëm xam nañ ko moo tax des fois débat yi nii. c'est vrai que dina ñëw ci place publique mënu ci dara te yéen vous êtes des des journalistes day baax ngeen waxtaanee ko sénégalais bi fu mu munte nekk mu xam lu xew. Mm-hmm. mais man mais en tant que législateur du ma ci bëgg a lu bëri man en tant que homme politique du ma ci bëgg a commenter lu bëri parce que mu ngi ci yoon. mais juste point de remarque bi mooy ci yoon bi mu nekk parce que tey jii comme ni ko Moustapha waxee tout à l'heure euh, bu doonoon tey jii ci nguurub euh, le président sortant Macky Sall. Mm-hmm. ñu doon rëbb kenn bu ñu ko amee du fa gaaw a Euh, tey jii nag dem nañu ba euh, justice bi mën nañu raxas nañ ko wala réformer nañ ko de telle sorte que dafa tëddee ñaaxaanaay que nga nekk ci pouvoir que nga nekk opposant que nga nekk koo xamante ni tey jii sax da leen doon attaqué bien avant teewul ni euh, même traitement bi la ñu daal di am remarque boobu la ñu def ci li nga xamante ni moom moo di dossier bu la jóbbe aussi. ñun duñ ñoom mm. ñun duñ ñoom ñun duñ ñoom bokkuñu daal bokk bokkuñu gis-gis bañ bañee ko sax ñun très doon nañ yëkkati slogan bi ñun duñu ñoom ni ko bugg ni ko jàppee ak ni fu ñu ko bëgg a jëmee ñu considéré wuñ noonu nekk ci pouvoir mm-hmm. ñun dañoo yaakaar ne nekk ci pouvoir mooy njëriñ sa askan. faire de la politique c'est quelque chose de très noble danga war a def de telle sorte que booy jóge bu ngi jógee ci nguur wala booy boo boo yoree nguur ba pare wala ngay def politique nit ñi di la naw ci say acte ci jëfin yu nga xam ne sénégale bi suba di foo romb dina jox ñaari loxo parce que am na dicton bu koy wax mu ne booy juddu booy juddu booy juddu yow da ngay jooy waaye nit ñi dañuy ree parce que dañuy kontaan parce que da ngay doog a judd waaye da ngay fexe yow booy génn àdduna tam nit ñi di jooy yow nga ree parce que vous avez servi la nation donc de cette manière là idéologie boobu laa gis ci Pastef euh, xalaat yi bu rafet laa gis ci Pastef donc ñu nekkuñ ci yooyu waaye nag justice moom lépp lu nga xam ne war na ko def dana ko def képp ku jël alalu askan bi képp ku fi tooñ nañ bàyyi justice mu def liggéeyam. c'est clair. voilà euh, merci beaucoup dañuy daal di ñëwaat lekk ci li nga xamante ni moom moo di euh, ñetteelu ponk bi ñuy waxtaanee umpalewu leen ni jamono ji nag euh, mbirum DPG bi nga xamante ni euh, moom le premier ministre waroon na koo amal ci euh, fële na la di assemblée nationale bi juróon na fi ab coow bu rëy ndax mbirum règlement intérieur bi nga xamante ni nekkatu ci woon ba tax na nag jamono ji ñett parlement yëpp ñett député yëpp ci assemblée ba amal nañu li nga xamante ni rek moom moo di ab séminaire ci ñaari fan yi ñu génn dem toog waxtaane waat li nga xamante moom moo di Euh, euh, modification wu règlement intérieur bi nan ak naka la ñuy def rek